قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وشاكرا فمن كان ينحو للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا له المسجد الأعلى فطاها مشيده وأقوى قطعه روض الجنان مجاورة أه، عودا مرة أخرى يدل سواد بنين عندك سوبي يبكي ديوان مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله عنه بيمو ديبيون ديوانا سير قلبي بال مصطفى الحب إلى حضرة الرب bi yàlla def ñu doon ci ànd yàlla mu baax mi di may ñu di ci dem di ñëw ku ñaan barkeeb diwaan bi barkeeb li composé diwaan bi barkeeb ki composé diwaan bi barke yooyu yëpp yal nay feeñ ci suñuy yëngatu ñun ñëpp ak suñuy dal ci barke baay di lenn ci yooni makkaay Cheikh Ibrahim Niass radiallahu yi nga xam ne yemutoon di jóg ji ca jëm waaye daf daan may jamono yëg-yëg bi bépp taalibe bu dëggu ci sa yu sëriñ di am boo fa jëmee di ko bokk ak ay taalibeem ay soppe loolu kat ci mën a jotale di aj ci yenn ci ajam di xasiida bu barke ci bidiye barke bayi bindon ko yim ko yahalale boppam ci ñetti fan ci weeru tebaski ci atam junne ak ñetti temer ak juróom ñett fukk ak ñett ci gàddaay ak yenent sallallahu alayhi wa sallam tombe ci weeru tubaab fukki fan ak juróom benn ci avril ci junne ak junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent 1964 ca Medina Munawara Baay di leeral rekk ci njëlbeen gi taxawaayam ci ay masail yoo xam ne dafa am solo lool ci bu ab rawatina nag ci jamono jooju mu nekkoon maxalla xilaafin ci diggante boroom xam-xame aalamul islaami bi ca jamono jooju mooy masalatu shadd rixaal <clears throat> euh, nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne amul fenn fu ñu war a takk gawar jëm fa lu dul ci ñetti jàkk ci masjidul xaraam ak jàkkaam ji ak masjidul aqsa ak problème wala qadiyatu ziyaare ji yonent bi ndax dangay dem pour ziyaare ji yonent bi ma tëdd Medina wala dangay dem pour jàkka ja ngay ziyaare ji am ñu ne damay dem waaye jàkka ji laay ji am ñu man damay dem yonent bi laay ziyaare ji bàyyi nag mi ngi bokkoon ci kuréel bi gëm ne dugg Medina moom waxuma Medina xijaas yëpp yonent bi la ñuy bu nekkee ne màkka mi ngi fi woon dippi suñ ibrahim kaaba gi nga xool gis maraaxil yim jaar ba bi ci mujj avant yonent bi di ñëw wala bi mu ñëwee sax waaye yónneeguñ ko mu nekk màkk ak mbokkam yi di xool gis sobe si nga xam ne suba ngoon ñi koy sotti ci kaaba ji ba baay mu ne ci lisaanu xaalu kaaba gi sax kaaba gaa ngi jooy di woote wallu ngir sobe si ñu koy sotti keroog bi yàlla yónni yonent bi bam dindi sobe soosu mu ne keroog la rongiñu kaaba gi far kon nga déggee ci ne képp kuy jóg ne damay dem mais néegab yàlla be ma tax a jóg pourtant mi ngi fi woon taxuloo woon a jóg waaye bi défenseur bi ñëwee ba ne fii benn bii du fi duggati bu kaaba gi amoon valeur keroog la gën am valeur bàyyi mu ne nag kon kitax kaaba gi ñu jox ko gëdd man kooku ma yëkkati donte kaaba gi yëkkati na waaye nag nga xam ne ñaari kaaba am ni ko sufiyanke di waxee kaabatul mabani ak kaabatu tadaani kaaba gi nga xam ne ab tabax la mang fa ca ummal xora ñëpp gis ko ak kaaba gi nga tabax sa

زائرة دنمكوسي دي زيارسي لأحمد نيال أحمد وما تخجو إذا صلى الله عليه وسلم مي أحمد وما يكتي ده مملا نيو بور زيارسي أحمد من خمنه خير العالمين مو جندي من ديف بولم لو يالا امال sayyiduna muhammad sallallahu moo la gën moom laa ñëw nemmeeku si ko ziyaare si ko wa shakira may sant yàlla mi ma kàttanal ba ma mën a fi yenentu boobu sallallahu alayhi mi ma tax a jóg mu ne moom la yàlla wax ci xaqam ne وما أرسلناك من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك وقد جاءوا البيت ولا المسجد جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أوكي كوكو ما تهجو القرآن من يو النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوني te amut benn yónnentu bu ma mës yónni lu dul ne digal naa xeet wa ma ko yónni nañ ko topp ci ndigalal yàlla waaye nag bu nekkoon ne ñi dem ba yàq seen bopp ci ay bàkkaar ñëwal nañ la yow jéggalu yàlla yow nga jéggalu leen yàlla danañ fekk yàlla muy buur bu mën a nangu jéggale buur bu bari yërmande waaye waat naa ko duñ am imaan lu dul lu xew seen diggante nañ ñëw ci yow nga réglal leen ko ndax yaa leen ëpp capacité pour jot si ci man alquran waxaan ñi wa in tutiicuuhu tahtadu wa maa ala rasuli illa albalaagu lmubin ma ne bu ngeen jub ne kocc jaar ci yoon wi rek topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa moom nag lépp lu ma ko jox pour mu war koo jottali rek amul dura ñàkk leen ko jot yàlla waxaan ñi ne wa man yuti allaha wa rasula fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina والصديقين والشهداء والصادقين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله bàyyi mu nekkoon yenentu boobu yàlla wax ni lii ci moom di ahmadu moom laa ñëw pour ziyaare si ko di sant yàlla mi ma kàttanal ba ma mën a ziyaare si kanaa kii waxam leer na kii moom du duut kuy wax wii wii non wii la noom noonu من فمن كان ينحو للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا فمن كان كبكو خمن دفجو ينحو دي جبلو للمدينة جمسي كمدينة منورة تمني bu agsee Medina Munawara zaira ñëw na pour ziyaare si nemmeeku si siwaahu keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa ok nangul naa ko képp ku ne yaa ngi jóg Medina nga jëm si waaye yow jàkka ji ngay nemmeeku si jàkka ji ngay ziyaare si am nga ci dura li nga def dara gënu ko waaye fa inni naka man baay jitu bu may ñëw fii ñëw naa zaira di nemmeeku si di ziyaare si ahmada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziyaara dafa am solo ci diggante ñaari jullit rawatina nag nga jóg di ziyaare ji koo xam ne ci leeram gi la la yàlla amalee ci la amalee say بورمي كتير باي بيم تحفة أهل الحاضرة بما ينفع الحاج سيما في الطاهر في الطائرة باين في عندي قصة بو خمني الإمام النووي موكو عندي كتير بوي وقع الأذكار إمام النووي دي نتلي منس كن وحق ot bi yu dafa nettali ot bi yu mu ne dama mos a ñëw di ziyaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa fi ma toog ci xabroom bi di ko ziyaare benn nitu àll benn kaw kaw aarabi yun nitu àll ñëw xam ñàkk caaxaan ñëw rek taxaw ne assalaamu alayka ya rasulallah yonent bi nuyu naa la de waaw dama dégg yàlla ne walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfaru llaha wa staghfara lahum rasulu la wajadu llaha tawaaban rahiman faqad ji'tuka mustaghfiran min dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi man nag kon looloo tax ñëw naa pour yàlla jéggal ma sumay bàkkaar ci sa barke dama ñëw pour yàlla may ma اك شفاعتو كي يو رجلا بس دا بيتي يا خير من دفنت بالقاع أعومه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم تدني والبد أو ينو mu ne yow mi nga xam ne yaa gën ci ku ku ku ku suuf mos a jën ci ay yaxam ba montagne yi ak beeñ yi yëpp teeyee ci sa ci sa yax yooyu te yow moomu maa la jotee sama bopp maa jotee sama bopp xabru bii nga tëdd xabru bi nga xam ne ak fegu ak tabe ak mbaax rek moo fi tëdd mu ne bi aaraabi bu waxee loolu daan ne wëlbët imaam ot bi mu ne fekk maa ngi toog noonu ci xabru bi noonu rek ma këf nelaw laata muy këf nelaw mu ne dafa jooy bi mu jooyee nelaw fëkk ko mu gént fi mu toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi ne ko oddi jugal nga dabal ma kaw kaw boobu di dem bégal ko ne ko yàlla jéggal na ko ay bakkaar waaye loolu jarut ñu gis naa al imaam Qushayri mu ne benn waay dafa mos a ñëw ci xabru yonent bi ko ba toog na ko yaa rasulallah man sa gan laa te dama àndaale xiif bu métte métte métte métte te ku am gan danga koy berndeel dama xiif mu ne kàddu yooyu la wax ci xaatiram rek toog nag ci pegg xabru mu ne noonu nag ay nelaw jël ko mu gëf nelaw bi mu gëfee nelaw gént fi mu bi jox ko benn mburu mu di ko lekk di ko lekk ci gént gi de ba mburu bi xaaj mu tiit yeewu xool gis ne li desoon ci mburu baañ ci loxom bi mu téye ko waaye nag bi imaam bi kaw kaw bi waxee loolu te ot bi nettali ko bàyyi mu ne nag li doon yar mooy kaw kaw boobu bu doon jëfandikoo yar di jëfandikoo teggin ak péeb yàlla bi kon du waxee ni mu waxee ndax bokkut ci yar nga ne ngay tudd yaxi yenantu bi parce que yax mooy ku dee ba fu nox te mu ne wóor na ne suuf du lekk jëmmi yenantu yi bàyyi mu ne bu doon man damay wax ne yaa xayra man abiqat bi tiibi turbatuhu e yow mi nga xam ne yaa gën ci koo xam ne suuf am na xet gu bonni ci gëtt gi nga xam ne moom lay xëy moom yonent bi fa taaba min tiibi tilka alqaawa walakum kon ñëw na di ziyaare si yonent bi keneen ku ñëw fii nag pour keneen yow la engagé waaye man ahmadu mooma tax a ñëw mu ne lahul masjidul ala fa taaha mushiiduhu wa aqtaahu rawdal jinaani mujaawira lahu moom rek la sax ñeel al masjidu jàkka ja al ala ja gën a kawe jàkka ji ngeen wax ne moom ngeen di ñëw di ko ziyaare si jàkk ji ku ko fi tabax du xayru xalqillaahi waaw man ngaa gën a buure buur mu ne jàkk ji fa taaha yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mushiduhu mooy aji tabax Medina Munawara jumaa ji yenentu bee ko tabax mooy njëlbeenal liggéey bu mag bum fa taxawal gannaaw gàddaay bi mu ñëwee Medina bi muy gàddaay moom sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ba Qubaa euh, tabax na fa jàkka laata muy àgg Medina gannaaw ay semaine mu jógee Qubaa jëm Medina julli juma dabko ko booba ma ngi ca gàddag bani Salim ibn Awfin mu tabax fa juma jàkka laa bëgg a wax ba mu àggee lam fa njëkk a taxawal mooy jumaam jiitay ñu ziyaari muy jumaa joo xam ne bi mu koy tabax moom yonent bi bokkoon na ci ñi doon liggéey bu nekkee ne yonent yàlla ibrahima maamam moom la yàlla wax wa id yarfau ibrahimu alqawaida min albeyti wa ismailu moom nga dégg bàyyi ci ziyaare mu ne kenn amul maqaama ba ne duma tabax ci néegam yàlla parce que ku la gën doon na ñaq ci tabax néegam yàlla yonent bi bokkoon ci ña doon tabax wax nañu moom sallallahu alayhi wa ne man bana lillahi masjidan kam nu mu ko waxee man bana lillahi masjidan kam mafxasi qataatin aw asgara bana allahu lahu baytan fil képp ku tabaxal yàlla jàkka ci lu yem ni gàmba peket wala lu ko gën a tuuti yàlla tabaxal la nekk ci aljanna bàyyi mu ne jàkka ji yenent bi moo ko fi tabax wa aqtaahu mu sedd ko ab ndogit ndogit boo xam ni mu jaawira aji dëkkeewaale la rawdal jinaani toolu dër yee ci aljanna xadis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal foofu mooy fi yonent bi ne maa bayna bayti wa mimbari rawdatun min riyaadil jannati diggante sama néeg ak jàkka ji ndogit la ci aljanna moo tax mu ne wa aqtaahu mu sedd ko cër mu dogal ko ndogit soo xam ne mu jaawira aji dëkkaale la rawdal jinaani moo tax baay bokkoon na ci ay ñaanam alayhi salaatullahi fumma salaamuhu wa tukfiru fi kulli bilaadi jawaamici yàlla maa ngi julli ci yonent di salmal ci moom di ñaan ci barkeeb julli googu ak salmal googu yàlla na nga bëril samay jumaa ci mboolem réew moo tax képp ku yàlla may wërsëg nga tabax jumaa di taalibe baay rek ñaanu baay gi nangu na ci yow yàlla na nangu ci ñun ñëpp mu ne yuzakkiruni dahran mada wa nabiyuna yaruuxu wa yaxdu يبلغ الوحي ذاكرا يذكرني ما فاتلي ممجاك جوجو دهرا جمن جو قمن مضى ويون ونبينا تبوب سنين النبي صلى الله عليه وسلم يروح من دان غنت ويغدو ميقي يبلغ دي جوتله الوحي وحي بكو يالا يوني zakira di aji tudd yàlla di aji fàttali nit ñi la yàlla waral ci ñoom tabaxut jumaa rek yem ci waaye daf daan baagante di dem ci diggante néegam ak jumaa ji di joxe ay farataam anas ibn malik di bëkk néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali nañu ne yonent bi nekk na néeg nday aïchatu ndey Aysa du am lu muy ñaw yonent bi ne ko ma ñawal waaye xoolal gi góor ci biir këram ma ñawal ndey Aysa du jox ko yonent bi di ñaw ba dégg Bilaal ne as-salaatu jaamiatun waxtu yu jot na yonent bi jóg jëm ci jumaa ja mi ngi téye lim doon ñawal ndey Aysa du di continuer di ñaw di continuer ba ci buntu jumaa ja mu jox Anas ne ko téel ma Anas téel ko mu dugg julli génn jëlaat lim daan ñaw di continuer di ñëw ba néeg day age <laughs> kookoy xayru xalqillaahi nga nekk ak sa soxna di ko wan ne ko may góor gi gën ci góor ñi ndax yaa ma wax ci sa jëf ci sa wax ne may góor gi gën dinaa la ko wan moo tax nga bàyyi ñëpp ne ma dee ko ñawal bu nee ci waañ wi togg fekk ko fa di ko jàppale yonent bi da ko daan def ak soxnaam ci waañ dee ko reetaan loo dee ko wan lum amul kër baayam ci kafag ree buy dund ak yow ci environnement boobu dana yendu ci kër baayam sax day xaaj yendu bi ñibbisi ndax du am foofu aayoo nenne waaye yow koo xam ne boo duggee sa kër mel ni gendarme boo xale yi sax duñ saqat assumaan sumaanak seen yaay loolu di jukko yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam te maay ki gën ci sama njaboot kon moo ñu gën ñun ñëpp waaye daal boo nee sa kër nekk gendarme boo génnee ci biti ay xale yu ndaw di la kalli kalli loolu du lu rafet Eh, ma ne yonent bi sallallahu alayhi la doon dunde ak njabootam di leen ñawal di leen toggal di leen defal lu ne diggante néegam boobu ak jàkka jooju neegoon nekkoon baaguwaayam te gis nga bàyyi moom itamit waxoon nañ ko ci darsu ba le passé nim daan daagoo diggante néegam jumaa jum tabaxal yàlla tabaxut jumaa rek ne dem leen julli déedéet dafa jiitu ci julli ma dafa jiitu ci julli ga yàlla yàlla fayal ma suma mag Cheikh Omar Faye di doom ci suñ baay Cheikh Mouhamadul Kabir Faye dama ko laaj pour mu wéralal ma xissaay li ñu wax ne suñu maam Cheikh Mouhamed Kabir Faye moo nettali ni bàyyi jullee xabdu 1944 mu ne ma suma bàyyi moo ma ko nettali xanaa loolu wér na mu ne 1944 xam nga ci la bàyyi njëkk julli xabdu maamalaa ji da daan julli di yoor bàyyi it njëlbeetam njëlbeenam da daan yor bi mu demee ba 1944 ci la njëkk julli mu xabdu moom baay julli tusbaar la ko njëkk a def Cheikh Mouhamed Kabir Faye ne mi ngi woon ci gannaaw xamul ndax bàyyi loxo ndey joor teg ci dënn bi teg càmmooy ci kaw wala càmmooy la teg teg ndey joor ci kaw ci xisa bu gudd mu ne bi tàkkusaan di waaj jot mu ne damay jiitu ci jumaa dem taxawee foo xam ne dana xam sëriñ bi nu mu tegee loxoon mu ne mu ñëw pointé wu ñëwee rek biñ liqaamee rek bugguma tudd tur waaye eh, sëtam yaa ngi fi tey moom mu jël loxo ndeyjooram teg ci dënn bi jël càmmooyam teg ci kaw ndeyjoor bàyyi dem bay kàbbar mu jigi mu gis ko mu dox jëm ca moom ñëw wàcce loxo mi jël càmmooyam bi teg ci dënn bi jël ndeyjooru góor ga tegal ko ci kaw càmmooy bi teg ci dënn ba ne ko baabu wadul yamini alal yusra 1944 hmm. année boobu ci la rahmatullahi alayhi cheikh Mouhamadul Mamoun judd te cheikh Mouhamad Kabir Faye li ko jaaxaloon mooy euh, góor ga ko doon jàngal ca kombo dafa bokkoon ci ñi njëkk taxaw pour di fesel sunniyatul xabd ñu daan xabdu foofa ñëw mari na gis baay di xutba di xabdu di kikoon di yoor mu jaaxal ko dem bay laaj gis nga far bàyyi ñëwee ko noonu euh, li ma bëgg wax mooy jàkka jooju jumaa jooju yitteem la woon bàyyi na yenentu baa ngi nii jumaam ji daf may fatali jamono jo xamne ne na mu daan ko bag di dem suba ngol te daan tuddu yalla nak waxtu mu nek téere yi nañ ñu ne bim ne màkk di len o ñu nek ci sen nelaw yu metti dañ daan to rek gis ko guddi muy xoti mbeddi màkk melni mel ko di wër mbeddi yoy di tudd yàlla rek di tudd yàlla rek allah allah allah allah mais nii macco bu yegg te rek léeguñ ko nga gis màkka ñi xamut xaal bi mu dund naan cey muhammad moom de dafa faa boromam rek muhammadun ashiqa rabbahu mu ne yabiitu yunaaji rabbahu wa nahaarahu yuaashiruna yahdi ila diini naasira mu ne daf daan fanaan yunaaji di deeyaale rabbahu boromam point mooy guddi gi sallallahu alayhi wa sallam daf daan jaamu yàlla naafila ba ay tànkam di newi إمام بصير وحنكو ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه ضرا من ورم من دبو منافل ودود توانا توانا سنة يكو خمنا دلان دندل قدي بنياري تانكم ديني ونجر تخواي بميت وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم koo xam ne da daan xiif guddi ba ay butitam ay baljatam da koy lem jël ay xeer takku ko ca ca legga ga legg goo xam ne dafa nooy nepp boo leneen a ci yàlla lu dul ñu takk ci ay xeer wa ànd ak loolu yëpp waraawadathu ljibaalu shummu min dahabin an nafsihi fa araaha ayyama shaman كن دفدان فنان قد ديجام وبرم تا قران وخنكو من الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك أبوك مقاما محمودا نافلة قد فرات لكي ننتبي نافلة لكي كنين كدول مو ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل yooyu yëpp nag mënuñ ko koo wax muy nelaw guddi moo tax guddi gi daf daan jaamu yàlla wa nahaarahu yuaashiruna su bëccëg jotee nag day dund ak ñun bu guddi jotee mu jox boromam xaq bi mu am ci moom bu bëccëgee mu jox jullit ñi haq bi am ci mom di régler problème yi di fajj soxla yi demet demet bam mu jeex nga jàngee ci ne lislaam diinaay jaamu yàlla la waaye diinaay liggéey la bàyyi wax na ko ci tafsir alquran mu ne bu yàlla ne wa ma jaalnaahum jasadan laa yakuluuna altaama wa ma kaanu xaalidin defuma leen ngeen nekk jëmm yoo xam ne da ngeen fi nekk te du ngeen lekk bàyyi mu nekk ku munta ñàkk lekk xam ne war ngaa wagasu liggéey wa maa kaanu xaalidina du ngeen fi sax comme wóor na ne duñ fi sax luñ fi yàgg-yàgg danañ jógee fii dem dajeeg suñ borom kon nañ jaamu yàlla yabiitu yunaaji rabbahu wa nahaarahu yuaashiruna yahdi digginde ila diini jëmale ñi ci diine ju sell daan ommat nit ñi yóbbu ci diinay lislaam ji diine ca yàlla nasira daan dimbale diine jooju di dimbale jullit ñi ne ci diine jooju wax nañu ne kullu nnaasi yadxuluuna aljannata illa man aba ñëppay dugg aljanna lu dul ku qiila wa man yaba ya rasulallahi kuy bañ a dugg aljanna mu ne man ataani daxala aljannata wa man asaani faqad aba képp ku ma topp ci diine ji yaa dagg ticket bi la yóbbu aljanna waaye ku ma bañ a topp yaa bañ a dem aljanna aynu rahmati rabbaniyati باي من فآثاره دلت عليه تبصرا بمكة أمر الهاشم الدهر ظاهرا فآثاره أي جي ختم دلت تكتلنا عليه كمم بو بغي قم فين تبجارون أي نملون كاي أي جي ختم آثار باقية mu ne bi makkate mu ne tabassar xoolal xullil bu baax da nga gis ne bi makkate ca makka amral haashimi mbiram yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dëhra diiru jamono zaahira daf ne fàng xoolal mandarga yi nga xam ne palaas yi nga xam ne ay barabam la woon makka tey dangay ngay mën a dem teg sa baaraam xool sa bët ni mi ngi nii mais xoolal la nga xam ne ay noono ma ko moomoon tey doo fa gis benn jeexit bàyyi mu ne nga dégg ci ne nekkal yàlla rek moo wóor te képp kuy xeex nitu yàlla xeexoo ko yàlla nga xeex ndax ñaar rek la yàlla déclaré guerre ne bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yëgul maa ngi seen kaw kuy lekk riba ak kuy xeex waliyo Cheikh Tidiane radiallahu anhu ne ñu déggee ci bu yàlla ne képp ku xeex sama waliyu maa ngi ci sa kaw kon képp ku xaritoog sama waliyu rek ma xaritoog dangay xool gis Kawlax ña fa nekkoon lëjaloon baay bi faydu bi ni jëppet تي بوي جوخون ني في نيوكو مومون دا نغي غيس مو نيك ملوكان بو خامي دا نغي ويتي سا بوب نيوني لا باي تودي وون سا الفراعنه من فبرهام واو فبرهام ياتي زائرا متوسلا ومستشفعا ارجوك في القبر حاضرا فبرهامو برهام يس ميدول سينما بندي كوي نيغي ياتي بوي نيو ميد ادير آه، ادير تبنا منوتي طيبة هذاك بدر وخندق وذا أحد تنسيك بدوا وحاضرا وتي جلال تي ماندرغ يوي تي جيخيل يوي مالا واخون فاثاره دلد عليه وتيجي للبي طيبة طيبين بمدينة الرسول على ساكنيها أفضل الصلاة والسلام طيبين ci barab yi nga mën a joxoñ ne place la ci place yonent bi la mi ngi ne waaye tey mënoo xam هذا كجل لله بدر خرب بدر ولا بلاس بدر رنجي fa yonent bi dajee woon ak noonu wa xandaqun xandaxa ngi wada jëlal li uxudun uxuda uxud mi yonent bi ne montagne la boo xam ne bim ñu bëggee lañ ko bëgg palaas yi yëpp dana la fàtteloo ngir euh, rawaatu jamaalil xaq ba fay feeñ bët wan bépp dëkku euh, àll wa xaadira ak فبرهام يأتي زائرا متوسلا ومستشفعا أرجوك في القبر حاضر فبرهام برهام يس يأتي دنيو تدودن مكدنيو زائرا دي أجي زيارة سلا دي أجي نميك سلا متوسلا مي دفت وصل كسا درجة كسا بركة tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azimun wa mustashfian muy aji sàkku sam ramm sam tinu arjuka yow rek laa yaakaar sang bi xaadira nga teew ak man fil qabri bu ma demee ba ne ci suma bamb sawaad ibnu qaarib xaj na xisa bi gudd na waaye darsu bi di ñëw danañ ko yaatal ak géntam ga nga xam ne gént na ko mu takkar naa sa ñetti yoon ci jinne yi nga xam ne ñoo ko doon xibaar yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko imaam ibnu kathir indi ca ba mu firi laaya ja wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'ana falamma xadaruuhu qaalu danañ ci aksi ci dars bi di ñëw gën ko leral waye limu bëgg jël fofu moy ci bam andé ak mbokam ya ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasidaam bu wala baytim yo nga xamné dem na ba ci biir mu ne ko fa kulli shafian yawma la nu shafaatin bi mugnin fatilan an sawaad ibni qaarib maa ngi ñaan bés penc bés ba nga xam ne kenn la fa kenn la fa kenn la fa pouvoir bu wër ñeelut ku dul yow maa ngi ñaan bés boobu nga ne kii ramm sawaad ibnu xaalid fa kun li shafian yowma zaagat wa adanat wujuhun wa absaarun tara alkulla xaaira فكن ما نيان ريك نك لي نيام شفيعا دي اجي رم سما يوم بس بنا قمنا زاغت اي بد جنغنا ولا زاغت جنغنا ابصار اي بد شكنا وازعنت مترقل وجوه اي كنم tara nga gis alkulla ñëpp koo ci gis rek xaaira ma nga gëlëm ngir tiitaange ngir jaaxle foofa de yaakaar naa nga tinuma yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te danañ àgg ci tiitaange ci bés boobu ba waqat shaaba wildaanun da ngay gis ay ndaw tiit ba béja waxaafa mu mujj tiit mu ammanun ku amoon kóolute bés ba dana raglu ba waqat balagat dana yegg kullul qulubi mboolem xol yi alxanaajira dana yi tiit ba tiitaange gi mel ni lu yegsi ci seeni ba wa kullu bari in képp ku aji set ji bàkkaar xaala nafsi dana mujj wax ne sama bopp doy na muy yenent yi muy kudul ñoom waqat gis mu bóof aljamio ñëpp ci kanam bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci seen kanam borom fala tulfi doo fekk hunaako foofa akaabira kuy wane ak ngandaayam mukk wala malikan amul benn buur bu ak nguuram di sax keroog illal ilaahu ludul yàlla bu yàlla taxawee ne limanil mulku yawm ma ne ñi doon oote ci àdduna bi ne ay buur ngeen kaay leen tey kuy buur bàyyi mu ne tekk kenn du tontu yàlla tontu boppam ne lillahi alwaxidi alqahar باي من بيسبوع soxla naa sag shafaatu yaa rasulallah wa shafian foofu amul kenn ku am pouvoiru tinu kenn si wal mustafa al muxtaari lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bët an ci azal bët an ci azal wa axiran ak ci abad mbaay mu ne buñ àggee foofu nag ba situation bi mel noonu fa muat fa muctamadi xaqan ataau muhammadin wa hal yataxaddaani zamaanu mukaabira fa muctamadi bu ñu àggee foofu sama sukkandikuwaay xaqan ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ataau muhammadin mooy gessoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramm gu may yaakaar mu jugee ci mbaaxam waxal maa ngi laaj yataxaddaani ndax ñeme na ma dévier azamaanu jamono mu kaabira muy ay muy aji man ndax man jamono ñeme na ma dékk dama dékk ndeysaan ku yenent bi ne sa kaaraange ba ne ximaayati rasulullahi la jamono ñeme wala dékk من لنفسي وآبائي ونسلي ورفقتي شفاعته والحق أبدى السرائر شفاعته رمو بين انتبي صلى الله عليه وسلم أتنوم من كوينيان لنفسي يلا ما يمكو نيال سما بوب وآبائي أكسما يبائي ونسلي أكسما نجيري سما نجبوت urufkat yi ak sama mboolem kàndaare taalibe yi soppe yi ñëpp a ngi ci biir wal xaqu te fekk yàlla te waxtu woowu ci bés boobu ab daa feeñal na assaraira mboolem yu nëbbutu woon yawma tubla sarairu ma lahu min quwati wala nasr mu ne ridallahi an cheikhi wa asli ومرشدي وقد عاش يهدينا إلى الدين ناصرا رضا الله قرمان ديل يالا مي سما بروم عن شيخي يالا نيكي سما سرين وأصلي أك سما باي ومرشدي أجي جندي سما يالا يالا قرم سما باي سما سرين مام الحاج عبد الله نيس رضي الله عنه baay maam alaaji mooy waajuram maam alaaji mooy sëriñam maam alaaji mooy professeur am maam alaaji mooy léppam mooy ilimaanu mexraabam ba wax nañu ne jikkoo sama jikkooy baay mooy sama doyab càkkute ak bi axlaaqi waalidi wa gaayatu matlabi nit ki nag bu la marqué wut doo bëgg jikkoo ay jikkoom comme baayam rek moo ko yem mamalaaji mu sàmm boobu mamalaaji mu amoon cër boobu te ni baay mel ci baayam man ngaa wax ne noonu la maam alaaji meloon ci baayam maam Sidi Muhammad euh, Ustaz Ahmad Bukaar jazakallahu xeyran bu Seyda Roqi nettali na ma mu ne maam alaaji dafa mos a battale ci daara ji ne maa ngi génn fii dem te ñëw bu ma suma bay laajee maam Sidi Mouhamed ne ko dama dégg benn téere bu jógee gànnaar téere bi dafay fasale diggante alhamdu wa shukru dama bëgg a dem ci ki ko amee ma toog fa sotti ko gaaw ñëwaat mu demee baayam maam Sidi Mouhamed laajte ko gannaawam ñu wax ko loolu maam Sidi Mouhamed ne awaay ah abdu moo bëgg xam-xam abdu moo bëgg xam-xam abdu mii de dafa mel ni bu ma ko reyaloon bu ma ko mayoon ndigal rek mu dem Murtani yokku ci xam-xamam imaam alaaj ñëwee ñu wax ko li baayam maam Sidi Muhammad wax gannaawam mu dem ci baayam ne ko boo may may ndigal ma dem boo may may ndigal ma dem maam Sidi Mouhamed na ko Abdou noppalul mu ñëndikul rek toppatoo ma nga ba jébbal ma sama borom Mauritanie mooy jàng si ci yow kan na lim ko waxoon na yàlla na yàlla ma suma baay suma sëriñ waqad aasha dund moom suma baay moomu yahdina di ñuy gindi ñun njaboot geeg taalibe yëpp ila diini di ci diine nasira di dimbale ci diine di dimbale diine ci ñun bi gazwin wa taalimin wa xajjin wa hijratin wa aasha shakuran wa huwa qad aasha sabira maamalaaji dimbale na diine bi gazwin ci xare xarban musallaxan ba wax ci xare jàmbaari fàkk tëdd la dafay aforonte noon bi bañ naan alaaj dafa am tul ak sende parce que da gis fett yi ni mi bëttee di jàll ba nettali nañ sax ñu ne lenn ci xare yi dafa xool gis mbooloo mi xaw a tayal te loolu baaxul ci mbooloo mu xam ne danger la mu yëkkati laaya ji قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين في لا ji rek من mel ni xam nga stratégie léeg-léeg dafay baax boo nee ci kanam mbooloo yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam benn at si buru dafa dugg Medina Munawara mu xool gi saxaaba yi di wër kaaba gi si buru bi laal leen bañ tayal mu ne rahimallahu mra'an araahum min nafsihi l yowma quwwatan yàlla yàlla yërëm koo xam ne wane nga kàttan gu yéeféer yi xamee ne ñii ku leen di Euh, saxaaba yi seen njëkk seen cël yu njëkk yi seen euh, première aswaat yi sax dañ doon cal ba Quraysh naa ñii duñ ay nit ndeysaan kon maam laa ji xarem wa taalimin ak jàngale njabootam yëpp moo leen xamal wa xajjin aj na ci jamono bu aj jafe lool wa hijratin gàddaay na ci dawale diinaam ak rawale njabootam ba lim bëgg yàlla bëgg ko mu def ko ci njabootam pas Jean bëgg wala li Paul bëgg waaja dund na shakuran di santaakoon lool par excellence wa huwa moom xad aasha dund na saabira lim dund yëpp ngir diinaam lim tubaab bi wax dëgg yàlla am bu la waxul muñ na sax xam nga ne muñ wax nañ ne ci fitam ak bu nekkaan ci xare day nekk beneen nit ak mbëggeel gi mu amoon ci alquran ak gëm yàlla gi mu gëmoon boromam daana firi alquran ci biir xare mooy buñ xaree ba am benn instant nag ñu taxaw di mm, jëlaat beneen formule da ngay gis day xëcc aay rek mu firi ko mayaat nit ñi force mayaat nit ñi kàttan kooku tiitul de ndeysaan عليك صلاة الله ثم سلامه أتيتك برا ثم بحرا وطائرا نيول جلنا تيو سلمل تيو لقمل نيول نالا ci jéeri ji mooy jël naa oto jugee màkk jëm si ci yow wala jël naa oto sama kër jëm Dakar ci yow laa jëm si summa baxaran ñëwal la ci géej gi mooy ajam gu njëkk jël na bato bi wa taaira jël na avion lu ma munte mboolem wasaa'il yi nit di demee rek jëfandikoo naa ko pour jëm si ci yow xamna talibi taalibe bo xamne dund lopp téméré ëpp téeméeri at dëkkoon ci Nigéria doxé na Nigéria ñëw ci baay duguna auto ñëw ci baay duguna avion ñëw ci baay mune ne te yoon yi ma ñëw yeb nak duma ñëw man kenn de bi nafsi wa awladi wa sahbi wa usrati fa athif lana ridwana batnan wa zahira ñëwee naa sama ñëw naa ak sama jëmm wa awlaadi ñëw naa ak sama njaboot samay doom wa saxbi ñëw naa ak samay taalibe wa usrati ñëw naa ak sama famille maa ngi ñaan fa attaxif yal na nga maye lanaa ñeel ñu ridwaana sa ngërmaande lu gën a màgg la batnan wa zaahira ci zaahir عليك صلاة الله ثم السلام هو آل وأزواج ومن كان عاشرا الله يلا جولي تشيو الله يلا سلمل تشيو جولي غو خمنة سلمل غو خمنة دانا مات دا كابو آل البيت اك سمبولي مي سخنا ومن كان عاشرا اك كيبو غو خمنة دونون àndandoon naa la xasida boobu jeexee beneen yoon ñu ngi ñaan yàlla na ñu jàmm na yàlla kattanal ñu ñuy man ci géej ak mahabbati ci géej ak ci na am mbindam di am yaqin ne munuñoo nekk ci lu ko gën te kenn munta ne ci lu gën loolu lu dul ku nekk ñun fi loolu ñu ñaan yàlla def barke baay di ànd ak ci waxtu wu ne def barke diiwaanam yi barke leer yu diiwaan gi di fenk ci xolu taalibe bu ne yàlla di ñu ci maye wér di ñu ci maye kàttan di ñu ci yokkale suñ bëggeel ak suñ tëbb ci moom ci barke baay barke baayam maam alxaaj abdullahi ñas radiallahu anhu barke sëriñam seydi cheikh ahmed tijaani radiallahu anhu wa bijaayi xabibi almustafa sallallahu alayhi wa sallam بسر ما حوى كتابك المبين والسر من أنزله إلى الأمين طيب لنا الأرواح والزوات ولتكثر الأرزاق والأقوات أعل بناءنا على بنيان أعدائنا بقية الأزمان غط عيوبنا بسترك الجميل من أظهر الجميل مولانا الكميل فأعن العبد على الذكر وخذ بيده ويد من عنه أخذ لا احتجت نحو غير مولاي أبد في هذه وتلك الله الصمد